mbokk yi ni ngeen ko gisee noonu jam ñu lay nuyu yow yaa tëggoon làmb ji gis nga ñaari xale yi tey ñëw nañ ci parrain bi indil ko drapeau bi ñoom ñaan ñëpp ñu mel ni ay frère dafa mel ni tàkkusaan moo leen boolewoon woon làmb ji boo gisee ñaari xale yi bu ñu bëree ba pare mel nii ban yëg-yëg nga ci am. Diéli maa ngi lay fay di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di sant yàlla bu baax a baax julli Seydina Mohamed sang-sang yi sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass nuyu kilifa diine kilifa aada yi ne ci réew mi yëpp waa Touba waa Tivaouane waa Thiénaba Cambérène Ngor Yoff Ouakam fépp kilifa diine nekk rek ñu ngi lay tàllal loxo di sàkku si yow ñaanta di la ñaanal comme li nga wax nag sedd na xol quoi jotaay bi dañ koy rafetlu muy ña képp ku fi teew tamit ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñu ànd ak Moussa Dioum de ñu ànd ak Boy Sil ak ñi nga xam ne ñoom lañ fekk ay wóolare Assane Fall Euh, ñoom ñaar làmb moo leen boole ndam li génnul ci réew mi. Mm. espoir boo xam ne la kenn ku ci nekk teral say waajur moo la ci tax dugg. Mm. kon bu ñu ci duggee làmb boole leen ñu bëree ko ci ngor ak fulla ak fayda ci jom. Mm. seen làmb bokk ci combat yi dàq journée bi. ci biir day daan lamb ji kenn waxul moromam lu ñaaw kenn deful moromam lu ñaaw kon su lamb ji jeexee ñu xëy ñoom ñaar àndaat. fii ñëwaat ci kaw ci kër parrain bi. loolu lu rafetlu lu ñuy rafetlu la ci làmb. di wax Mm-hmm. làmb li la soxla soxlawul violence. Mm-hmm. ndax nit ki lépp li nga nekk yaa ko war a sàmmal sa bopp. Mm-hmm. yaa ko war a fonkal sa bopp. soo ko fonkul sàmm ko kenn du la ko sàmmal. soo ko fonkul kenn du la ko fonkal te ñoom li ñu wane nii mooy wan nañ ne seen liggéey fonk nañ ko quoi. ndax dem ci ah, kenn ku ci nekk dem di uti yàlla xañ ki may ki ñoom ñaareem ñoo àndaat. waaw respecté sa liggéey si la bokk ak ngëm yàlla tamit. waaw di leen félicité bu baax rawatina. Ah, booy Jules di ko ñaanal ndam li jing ko Moussa Dioum 2 tamit de mérité ñu ngi koy encouragé mm. bu amaatee beneen combat yàlla defal ko jàmm defal ko ndam mm. Mm. am na solo léegi jamaïcain ñaari xale yi da nga leen di mujjee bàyyi wala ñoom ñaar ku ci nekk jam production bëgg na ko tëggaat waaw ñoom ñaar yëpp xam nga tey comme li ma wax rek ay frère lañ ñun ak ñoom ndax kenn ku ci nekk am na tey lu ñu boole lu làmb kii su su ma ko tëggul sa soo keneen tëggee sama frère la musaa Dioum 2 tamit noonu kon yaakaar naa ñun lu ñu bëgg si ñoom daf ñuy yomb ñoom lu ñu bëgg si ñun euh, euh, daf leen di yomb waaw kon ñun ak ñoom du làmb waaw ñoom lu ñu bëgg si ñun suñ ko amul si ñoom ñun tamit lu ñu bëgg si ñoom suñ ko si ñoom la kon yaakaar naa ne ah ñu ngi fi ñoom ñu ngi fi. tey saison baa ngi nii tëj na ubbeegul te am nañ yaakaar ne déwén incha allahu rabbi buy ubbi ñoom ñaar ñoom ñoo leen di bëreeloo ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp. Mm-hmm. ku ci nekk adversaire yi mu bëgg est-ce que adversaire yooyu nga leen tëggal wala da nga leen wutal adversaire. waaw noonu la mbër kay heure boo ko tëggee adversaire bi mu bëgg nga koy tëggal mbër kenn mën na ko tëggal ku mu bëggul xam nga làmb moom chaque jour li may wax rek làmb mooy métier boo xam ne amul naan force la nga koy def wala lii la ciy fekk. kaa mm-hmm. yi bëree kii mbaa ñu tëj la amul ci làmb waaw yaay xool ki nga bëgg promoteur bi bëgg ko ngeen jubóog promoteur bi mu leen contrat waaw li ma leen ñaax di ko ñaax bépp mbër bu ne ci làmb rek mbër daal muy mbër muy promoteur ak comme ci mënta nekk képp ku la promoteur di euh, wax balaa nga koo jël na fekk mu doon li la gënal. waaw nga xam ne boo ko jëlee lépp lu ci nekk yaa assumer ses responsabilités waaye war baaxul. te jamono ji bëri na ci làmb phénomène da ngay wax mbër ba jubóo jox ko avance jox ko mu xëy ñëw naan la sama tànta sama nii nangam nangam nee nañ ma avant combat baaxul tamit ngay jël xaalis bi xooloo ndax xaalis bi baax na am baaxul xam nga yooyu moo commencé xaw a yàq làmb léegi ñoom ñaar loolu dalu leen wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk sa carrière maa ngi lay door a tëgg Moussa Dioum de maa ngi koy door tëgg booy Sir maa ngi koy door tëgg waa yaakaar naa mbër yu neex a liggéey ak lañ am nañ ngor foo leen woo dañ leen wuyu kii li ma gën a marqué ci combat bi woo nañ ko parcelle signature contrat mu ñëw est daanu am na yeneen mbër yoo xam ne soo leen waxoon na beneen mbër mi fa la bokk Moussa Dioum 2000 woo nañ ko Pikine signature contrat mu ñëw mm. mu ñëw fekk si kii ñoom ñaar ñu signature ci ngor kenn ku ci ku ci nekk defoo sa morom loo ko warul def ñëw bëree kii yàlla xañ ki loolu mooy làmb làmb ji suñu bëggee mu avancé mbër yee ko war a defal waaye da ngay jël avance su jàmbur ñu war a signature contrat nga foofu baaxul place bi nii nangam nangam ay tegtal yu kenn xamul. waaye ci làmb la bokk bu ñu lay tegtal comme bu daa bokk ci làmb booy jël xaalis bi nañ lay tegtal naan la bul jëlee avance bi xaalis bi baaxul. waaw non loolu laa wax mbër comme booy jëlee avance kenn du la tegtal musuma gis mbër muy ñëw jël si avance si promoteur ne ko ah bu jox nga ma avance de waaye sëriñ bi dafa ma woo tegtal na ma ne naa wàññi si avance bi jox la kanaa sëriñ ñoom du ñuy tegtal loolu mbëri. sarax la ñuy génn waaw non waxuma sarax sëriñ ñi nañuy tegtal mbëri ne leen bu leen promoteur bi joxee avance su 500000 jëlal 250000 yi joxaat ko ko tegtal yooyu kanaa sëriñ ñoom duñ ko joxe. ah kanaa sëriñ yi duñ joxe saaru tegtal yooyu ne mbëri avance bi may leen ko promoteur bi waaye tegtal yi ngay joxe daal mooy bu avance bi demee ba rees ba fay baaxul moytul gii moytul li làmb du loolu làmb tout le temps yi ngay gën a moytu si lañ lay daan promoteur tal na leneen loolu soxlu mbër ak nii boo xasee joxe avance mbër yaa leen ëpp problème doon nelaw guddi. daf làmb dafa metti ji làmb. eh làmb ba ma naan ku lekk xaalisu mbër te euh, mayu ko waaye kuy lekk xaalisu promoteur te joxu la ko. billaahi wallaahi wa taala yërëm naa la say mbokk coono bi ci ne ah. waa ji dafa metti nañ ñaan rek ñun ñëpp. natt moo ñu dugal muy mbëri muy ñun kenn ku ci nekk yàlla mënoon na laa jox amin bu gën a sedd làmp waaw ndax entraîné chaque jour nit ñi di nelaw nga jóg nekk ci dini di suul say tànk dafa metti di ñaay ci àll bi di dugg ay oto 24 heures nga ne ci àll bi dafa metti tey boo sañoon yàlla defal la lu mu milliard am na ñoo xam ni yàlla da leen di bàddil xewal tey mbër lu kombaa boo bëree gis nga ko la ëppale te coono yi ngay daj daj ko te mu ngi am lu ëpp kon ñoom ay jaam yàlla kenn ku si nekk ñu ngi lay ñaanal lu tax nga dugg ci lii yàlla defal la ci lu kawe sa njort ba nga tel ci génn dem ci leneen ndax làmb ji ku ne la méttiwul rek nekku ci muy ci mbër muy ci promoteur. waaw ah, yow chaque dimanche ne neexul te yaa ngi continuer rek di tëgg. waaw non natt la xam nga. Euh, natt boo xam ne neexul ba sax xaalis di di ci dugg. non dama lay wax tey benn affaire bu ne ci làmb muy mbëri looloo leen ci bàyyi muy promoteur yi looloo leen ci bàyyi hmm. tey mbër mu dem ci làmb préparer combat métti nga daanu. day métti métti yoo xam da ngay bëgg a reculer sa waaye xam nga tax doo mën a reculer soo reculer da ah dañ koo duma ku wéyee métti te am na ay mbër yoo xam ne jaar nañ si làmb léegi ay journaliste lañ fu ma dajee ñoom dama leen tooñ neen duma yee métti ngeen xool li gën a sedd fekk du loolu léegi nag léegi boo nekkee boroom jom yaa ngi dégg eh. loolu moo tax doo ci bëgg a dellu ginnaaw promoteur tamit noonu la mel eh. promoteur tay promoteur tay eh. soo tëggee làmb bàyyi année saison bi ñoom tëggatoo ay nit ne ah, sawaay daanu na mënatu ko léegi da doon sob sob la mënul tëgg yoratul lu mu tëggee léegi boo nekkee borom jom même bu métti yooyu la ciy bàyyi comprendre nga. Mhm. millier boo xam ne ni millier bu garaaw la du ñu reconnaître ku ci dugg bi nga ciy dugg kenn yëgu la waaye boo ciy génn rek boo ci bëggee génne noonu rek même boo ci amoon ay milliards ñu ah, mënatu ko de. sa waaw waaw ci dugal génnewu ci lamb moom mel noonu quoi moo tax dina neex nga nekk ci mu naqadi nga nekk ci. ndax buy naqadi doo mën a daw ndax sa jom moo la fay bàyyi mbër tamit loolu moo leen di dal de léeg-léeg mbër ne ci combat daanu ci bëgg a bàyyi waaye soo bàyyi boo génne ah booy ndaw yi ñoo ah dañ koo duma moo tax mu bàyyi làmb ji yaa ngi dégg soo amee ndam xam nga yër boo daanee am na mbër mu lay topp soo amee ndam bëgg a ñu ne la ah sa waaye de diw la bañ a bëreeg moo tax wala sa waay liyee ko taxoon jaay taar la léegi bëreetul liyee taxoon mu dugg ci làmb moo tax mbëri di ci des promoteur de waaye làmb jër yow mi sax xam nga ne métti na yow mi nga xam ne da ngay téye micro dem ëffal ay mbër xam nga ne làmb métti na torop wallaahi ndax jaar nga si yow mbër nga woon waaw boo ko bàyyee téye micro xam nga ne téye micro gën a sedd waaw noon la bi demee waaw nekkul ne nit comme dama naan dafa métti rek yow xam nga ne sunu journée bi ñu génn xam nga yow leer na la ne ah ku ko waxul ku la ko xam nga li ci nekk xam nga ne dafa metti ndax lan mooy lan nan nga tuddee métti boo mooy combat. heure boo ko waajee bañ ba mu jege si rek ñu aj ko rek promoteur bi dee saa perte nga ba pare. ah perte nga ba pare wax dëgg yàlla. kon combat bi passé da nga bëgg a wax ni perte nga ci làmb. waaw non làmb yooyu làmb yu mel ni mënoo ci gagné ba xam nga man la may wax rek dafa am ñaari façon gagné yu am ci làmb. xam nga nekk ndaw organiser événement bu ñaari mbëri ñëw bëree jël li gën a leer yooyu bi. mosoo ko gis. événement boo dem mun nga continuer ah jël bi leer na bii leer waaye komba bi. li ko dalee suuf ba ci kaw. jël yëpp a leer nañ waaw dóor mu daanu yi leer na bëre yi leer na gaañ yooyu mooy sant yàlla loolu mooy événement bu réussite tey mbëri mënoon nañ fa nekk di arrière dem gauche dem droite xeex violence gaañante fii avertissement yooyu amu ci kon yooyu mooy réussite nit ñëw yu kenn ku nekk ñëw si jàmm delluwaat sa kër loolu su amee ci làmb rek réussite la bu ñëwee nag ci côté eh, na bañ a neex comme ni ko nit ñi di fogee man daal damay sant yàlla ji ba damay sant yàlla baax a baax li ma la wax ne man làmb li ma gëm ne mooy pertement mooy nga tëgg làmb neexul mm-hmm. waaye heure bu làmb ji neexee jàll si jàmm gañe nga mm-hmm. la ko mm-hmm. boo tëggee mu jàll si jàmm gañe nga perte ak gañe ñaara ci am tey boo tëggee làmb stade bi amul nit làmb ji neexul soo ne gañe naa ñu ne waxul dëgg làmb ji neexul amul nit boo tëggee làmb stade bi fees tepp ah, soo ne perte naa ñu ne waxul dëgg te nit a ngi tëgg làmb stade bi fees te mu perte. kooko wax ko wax du ko gëm. nit a ngi tëgg làmb Sénégal gi yëpp ne perte naa. stade bi kenn nekk fa làmb ji neexul fekk si la ëpp xaalis ndax làmb moom système la ak ay biddiw ak kor rek mën nga tëgg làmb doo jaay sax 500 500 billets hmm. nga dajeeg ay nit ñoo xam ne balaa làmb ji kenn ku si nekk jox la loo xam ne nii rek tëgg na journée bi. léegi dañuy ñëw ci guddig làmb gi am na koo doon wër pour jéem a xeex ak moom foo mujjee ak moom gis nga ko wala gisoo. kan la. gis naa ko. si stade bi ñoom xaadim antaa ko jàpp indil ma ko. non jotuñu xeex. non jotuñu xeex xam nga jëri ndeysaan làmb dafa metti mhm. euh, da ngay tëgg làmb ñu ngi ñaax nag ñoom ñëpp suñuy frère lañ. Mhm. ba tey nit ki ndaw lañ ñun ñëpp. Mhm. te nit ki lépp looy liggéey rek di ko yóbbu sa kër war nga xool mu lew la. ñun dañuy liggéey ñun ak ñoom benn lañ. war nañ mën a ñëw di jàpp suñuy journée di ut luñ ci am. d'accord na nga ñëw ci làmb jàmbur jënd billet mu jaayaat la nga jaay ut loo ci am. waaye nit ku defar ay billet nga ñëw di ko dupliquer yaa ngi dégg. di ko jël di ko jaayaat wala dem ci biti di encaisser billet yi nga xam ne dugg na ba pare di ko jël di ko jaayaat loolu rafetul. loolu ku koy def tamit xam nga du la jural dara. waaye nag ñoom defuñu dara am ma tey lu neex waaj bi ñu ko jàppee ñëw dafa ñëw waxuñu lu leer. man sàcc laa. ci lii laay waaw ma ngi taxaw man ci lii laay dund waaye ñun suñ leen sàccee rek yi ngeen di àndal la. ñi ngeen di teg seen i ñooy jël seen i bee di ñu ko jox di ñu ko jaayaat. waaw xam nga loolu bu la ko nit waxee waxu dëgg la waxu gor. soo nekkee gor danga koy bàyyi mu dem ndax moom ñëwul direktement sàcc la sàcc bi mooy yaa ngi dégg ñu ko jàppale ñu la jege te soo toppee action day tas ànd te lu paase passé na ba pare comprendre nga da nga koy mujj bàyyi xam ne tey àdduna noonu la quoi nit mënoo waaw ma bàyyi ko. bi nga ko baalee kon lim lu mu fa am. lew na ko doom ah, man wax naa ko moom wax na ma carrément génne na ne ma wax dëgg yàlla amoon naa ci temps waaye damaa ja dañ maa tànc nangam nangam expliqué lii ci des. Hmm. waaw bu ma jugee fii sax maa ngi dem feneen dóor yi waaw xamal na ma ne ne ma làmb boo tëggati nag na na na dëggu nag ci kàddoom yooyu mu wax làmb boo tëggati du ma ñëw sàcce la te dinaa ñëw jàppal la say sàcc ku la sàcce dinaa la ko jàppal xam nga nooy def lu baal ko. bàyyi dem feneen nga ñaanal ko yoonu jàmm yoon bi neex. ñaanal ma ko moom yoon bi neex ndax bu yoon bi neexee dina lor keneen wax dëgg yàlla waaw bu yoon bi neexee dina lor keneen. moom daf la wax lu ci nekk xam nga ji. ci lay dimbali ay mbokkam ay ay waajur. ku taxaw ne lii man la ay place yoo xam ne yow sax rus nga. am nga kerse dem fa naan da ngay da ngay def naka su doon mu ne la fii nii ndaje yi bu amee dama fay dem wan la ay vidéo ne maa ngi nii ci ay délégation yoo xam ne musoo yaakaar ne saara ñun ñooñu dinañ ci bokk mu la koy wan ngay gis ne la maa ngi nii mag nii kilifa yu mag laay àndal te fu ma demee sàcc laay def <laughs> kooku bu ñëwee sa làmb sàcc la santax yàlla kuy sàcc ñu la ëpp barke ëpp la daraja bu la sàccee bu la sàccee da koy sante yàlla waaw waaw loolu rek mënul ñàkk quoi te boo toppee action rek la muy yàq moo ëpp daal li muy defar waaw jaajëf jii maa ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu Assane mm-hmm. wax dëgg yàlla di ko wax mention spéciale mm-hmm. comme ni ma la waxoon rek ndaw bu am jom la moo tax ñu tuddee ko drapeau mm-hmm. te ba tey loolu la wone ndax bu jeexee jeex na waaye tey bu jëlee ñaari mbër invité leen fii yaa ngi dégg ñëw dajee fi wax dëgg yàlla lu rafet la waaw di ko ñaanal rek drapeau bi dem ba doon ay centaine d'édition waaw mu yokk ba yëg ko yàlla defal ko lu kawe njortam di nuyu di nuyu Boucar Ndour bu Lutte TV Xaadim Anta Seck ancien gloire maa ngi koy ziar jum de ak ñi mu àndal booy ziar ak ñi mu àndal ñoom Babacar yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax mm-hmm. ñaanal jàmm bu baax a baax a baax xewal sutura jërëjëf Jéene